amnistie bi yéene la bu tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall waaye assemblée nationale ñoom ñooy dogal bi le projet de loi balaa yàgg daañu ko yóbbu sa assemblée nationale nit ki yeneen loi yi du am benn coppite procédure bi benn lay doon ci kàddu yi na Bocoum. su nekkee procédure d'urgence dafay gaaw nu muy gaawee mooy day suñu yóbbee loi bi waa kii recevoir ko euh, bureau li ñu convoqué après conférence de présidents conférence des présidents moom mooy choisir date. yu commission bi war a réunir ak plénière bi nag moom la la ñuy ibbi public bi ñu ñëpp ñëw su boobaa mu am ay débat ñu waxtaan ci affaire bi après nag ñu daal di koy voter ci gis-gisam lu loi mën na bañ a jàll sa assemblée nationale député yi mën nañu lànk ne duñu wote lu ni mel. xam nga temps yi yàggul gis nga communiqué bu euh, assemblée génn nga gis am député yu nekk ci biir majorité bi ñu ne ñoom d'accorduñu ak communiqué bi donc lu ne mën na xew. te gëm naa ne aussi opposition bi duñ ko duñ ko voté bon dinañ xool nag luy am après mais effectivement loi boobu mën na mun na bañ a jàll. su dee ni nag loi bi jàll na député yi nga xam ne nanguwuñu ko mën nañoo yóbbu mbir mi sa kanamu conseil constitutionnel si kàddu yi Thierno Bocoum. damay rappeler en 2005 euh, am na ñu defoon recours ku mel ni dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni Mamadou Diop Decroix ñoom ñu defoon nañu recours euh, ne bu ñu euh, luwaa bi dafa méngoowul ak constitution mais loolu conseil constitutionnel daf ko dàqoon euh, ginnaaw ba mu ko dàqee nag su génnee décision président su boobaa mën na mun na promulguer mën na promulguer loi bi. Thierno Bocoum bokk na si yi nga xam ne dañoo bañ bile loi d'amnistie